alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله mbokk jullit yi gannaaw ba ñu sant suñu boroom ñi ngi seede na moom dong moo yeeyoo ñu koy jaamu di seede na yonent mu ba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom dong moo am droit jàngale naka la ñuy jaamoo yàlla mbokk bu loolu wéyee suñu borom yàlla moo bind doomu aadama binde ko muy koo xam ne mënul dund moom rek fokk mu am ay àndandoo ba bu dee ne arab nam ko tudde mooy insaan daanaka mooy koo xam ne dafay doon koy wéttali ko loolu moo tax ba xam leen ne yoonu dund yoon bu jafe la li ciy gàllankoor bari na commencé sa bànneexu bakkan ak la nga xam ne mooy pexey seytaane yi ak pexey yéeféer yi lii lépp dafay doon doomu aadama bi soxla koo xam ne day dimbali këntoo ak moom looloo tax suñu borom sant ñu ñuy dimbilente ci njëkk ak ragal yàlla bañ a dimbilente ci la nga xam ne mooy la jëm ci ay moy suñu borom yàlla sant julit na ko ngal la waay del muñal sa bakkan ay del ànd ak ñoo xam ne day ña ngay jaamu seen borom suba ngoon jaamu ko nammuñu ca lu dul yàlla gërëm leen moytul di ànd ak koo xam ne àdduna dong mooy jubluwaayam ab xolam sàggan na ci fàttaliku yàlla suñ borom mu ne ku mel nii bu ñu toog ak moom bu ñu ànd ak moom loolu mbokk kon daf lay jàngal ne képp koo xam ne yaa ngi jóg di xaritoog moom ci kaw suuf di toogaaleeg moom ci kaw suuf da ngay jàpp ne kii kat ku ma mën a jàppaleen te la ci jaamu yàlla doomu aadama xamal ni képp koo xam ne yaa ngi ànd ak moom képp koo xam ne yaa ngi toogaale ak moom li nga xam ne mooy say jukko day sàcc ci ay jukkoom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ngal la waaye xam leen ne képp ku mën a doon ma nga ca doxaliinu kamu xaritool ma nga ci diinay kam xaritool kenn ci yéen ngal la waaye na xool kan lay xaritool mooy képp ku ñaan kii sab xarit la lan moo tax mu nekk sab xarit ana lan ngeen séq mbaa séq nga yemul rek ca la nga xam ne mooy intérêt adduna kese déedéet mbokk julit képp koo xam ne dafay ràññeeku ci say xarit na doon koo xam ne day dimbilante ak yow ci wàllu diine sunu borom yàlla subhanahu wa taala mu ne ay yéen julit ñi ragal leen yàlla ca ngeen di ànd ak ñu dëggu ragal leen yàlla ci di ànd ak ñu dëggu suñu yonent alayhi salaatu wassalaam daa dañuy leeralal ne nga la way julit booy ànd àndal ak sa mbokk julit na yow àndal ak sa mbokk julit na yow ay xaritool ak moom toogaale ak moom te mooy koo xam ne ni du julit man ngeen a siqi liggéey ak yu deme noonu am naa xaritoog wéttalikoonte bu ko defal lu dul koo xam ne julit la yonent bi teg ca ne bu kenn di ñëw di lekk saw ñam lu dul koo yëg na ragal na yàlla te ka ngay toogal di lekk mooy ka nga xam ne da ngay na dem ba seen ab ànd sa saloo ànd ak ñu baax day tax nga yokk mbaax ànd ak ñu bon day tax nga dellu gannaaw jëm ci mbon dañ ne mi ngi mel ne rek ngelaw boo xam ne dafa romb am midd midd ma mën naa nekk à cent mètres ngelaw li indi la xet bi ndax ngelaw li day yóbbaale loolu moom it mooy ngelaw bu romb loo xam ne nii xet gu neex la daf la koy indil yonent bi alayhi salaatu wassalaam daa di ne xam leen ne day ànd ak waa ju baax di toog ak waa ju baax mi ngi mel ne rek nga demoon toog ak ka nga xam ne mooy defar parfum di ko jaay nee na immaa nga jënd fa wala mu may la wala lu mu bon bon nga jëlee fe xet goo xam ne xet gu neex la mu ne ànd ak ko bon nag yaa ngi dem ca kee nga xam ne ma nga nekk ca mbaaram di upp ay furnoom yow nga dem toogaalik moom mën naa lakk say yére wala nga jëlee fe xet gu bon loolu muy wone ni képp koo yàgg àndal yàgg toog ak moom rek dana am loo jël ci moom mu neex la ak mu naqari la looloo tax ba waykati arab yi bokk na lu ñuy wax nit daal boo ko bëggee xam jarul ngay laaj mooy kan laajal ñan lay àndal soo xamee ay àndandoo nag da nga xam lan muy jikkoom loolee kon di mbir moo xam ne war nañ góorgóorlu bàyyi ci xel bu baax mbokk àndandoo bu baax mooy ka nga xam ne nii njëriñ bam lay jikk amal mooy di la fàttali ak jaamu yàlla di la wittali di la di la jajj ci jaamu yàlla waaye itamit di la tegtal lu baax di la tere la nga xam ne mooy lu bon suñu borom mi nga ñuy wax ci àndandoo yi gën a màgg ci àndandoo yi ndax xam ngeen ne mbokk àndandoo munta gën a màgg àndandoo jëkkër ak jabar abadan moo tax suñu borom ni ngal la waay fexe leen ba bu leen dem takk jigéen boo xam ne bokkaalekat la ak lu mu taaru taaru ak lu alal ja bari bari bu leen may benn góor bokkaalekat seen doom ak lu mu taaru taaru ak lu alal ja bari bari ndax ñooñu ànd ak ñoom danay yóbbu sawara te ñu ngi noonu ànd ak jabar joo xam ne adduna danga ko yitteel ay bokkaale ki shirk danga ko yitteel soo yàggeeg moom imma mu yóbbaale la ci lim nekk wala du mujj fu baax bokk na nag lu gën a bon mooy ku jigéen koy dem di si góorub bokkaalekat góorub shirk góorub bidaa góorub caaxaan loolee mbokk da ngay gis ne day yomb lool ci mu yóbbaale ko ci loolu mu nekk loolu kon di lu ñu war a bàyyi xel bu baax bokk na la nga xamee ni nii ki nga xamee ni nii waaju baax ngay àndal gis nañu ni du deñ mukk ci lépp loo xamee ni nii jàpp ne ne ni lii kat mën naa doon lu lay lor mu doon koo xam ne nii ku la koy fegal la ci laayale biir ci digal na lu baax waaye bokk na la gën a am solo ci loolu lépp mbokk ànd ak ku baax ca fekk bi ngay ànd ak moom yàlla rek a tax ndax kat julit xamal ne ko baax mooy jaamu yàlla képp koo xam ne mbaaxam gaa ngi yem ca alal ja muy joxe képp koo xam ne mbaaxam gaa nga yem ca neex deret gaa nangam du loolu moo tax ndax boo demee am na chrétien yu ëppale loolu sax julit ñi kon ku baax ka ngay àndal day fekk nag julit la bu gëm yàlla comme niñ ko jànge sànq ci xadis bi sunu yonente salallahu alayhi wa sallam nee na sunu borom yàlla day nee na dana war sama cofeel ñeel ñi nga xam ne dañoo bëggante ca man rek a tax bëgg doomu aadama dara taxul nga bëgg ko lu dul yàlla sama cofeel dana ànd ak ñiy dem di toogal di di toogante te ba ñuy toog man yàlla rek rek moo tax ku ne di seeti sa moroom ngir bëgg giñ ma bëgg ñooñu nga xam ne it dañuy sol seeni dàll di seetante ca ña ñuy seeti yaakaar ne jaamu yàlla yu baax dong lañu ñu mel nii day da ngay gis ne man yàlla dinaa leen bëgg ba bokk na ci juróom ñaar ya nga xam ne yàlla dana leen xettili yowmal qiyaama keral leen ca bis bu màgg boobee mooy ñaari góor yoo xam ne yàlla dong nga taxoon ñu ànd bëggante ci loolu lañ nekk ba dee teqale leen ca li war ca góor ña loolu moo war ci jigéen ña loolu itamit moo tax ba suñu yonente salallahu alayhi wa sallam doon ñu wax kenn ca gaa yu jëkk ya day génn na di dem seeti benn mbokk julitam am benn waay bu dajeeg moom la ko waa foo jëm mu ne ko maa ngi jëm ci dëkk bi sama mbokk jurit laay seeti mu ne ko ban intérêt nga fay wuti mu ne déedéet dama ko bëgg ngir yàlla rek di ko seeti ngir yàlla mu ne ko nag man malaaka la yàlla moomu yónni nee na bëgg na la ci bëgg gi nga bëgg sa mbokk jurit ba di ko seeti ngir yàlla loolu kon mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax doonte ne ne loolu am ci wàllu diine su diine itamit mbokk julit la yoo xam ne xam nañu lislaam dañuy xam ne jàppalante ci wàllu adduna ci lu yàlla gërëm la looloo tax ba am àndandoo bu baax àndandoo boobu mooy kay xam la yonent bi alayhi salaam wax ne yàlla day mi ngi dimbali mbokk julitam foog fii ak mbokk julitam mi ngi doon kuy dimbali mbokkam ca mbokk xarit bu baax heure bu yégee ne yaa ngi ci jafe-jafe jafe-jafe boobu mu am ca benn pexe fokk dana la jàppale dana la jàppale ci xalaatam bu dee alalam dana jël alalam def ca bu dee jotam dana jël jotam def ca moo tax yonent bi alayhi salatu wasalaam ne ma àndoon nag sama mbokk julit ci soxlaam ba soxla ba faju moo ma gënal ma tëju sama jàkka ji weeru yàlla di fi def itikaaf loolee kon mbokk ñu gis ànd ak julit bu ragal yàlla day xam ne moom day jaamu yàlla ci yow ci faj gam lay fajal say aajo loolu utu nag koo du bokk koo xam ne intérêt dong la gis ci àdduna mbokk suñu borom def na ngay jël xarit yu baax di ànd ak ñoom muy doon loo xam ne lu lay jural njéggalam ak yërmandeem xoolal suñu borom bu demee bay tudd asxaabul kahfi di xale yooyu nga xam ne juróom-ñaari xale lañu woon ci dëkku lëmm ak génn seen dëkk dem làqu ju ci benn montagne ngiree mucc ca bokkaale ya bi ñuy dem mu am benn xaj boo xam ne mi ngi àndoon ak ñoom suñu borom ba mu leen di lim ma nga ca boole xaj ba waaw yàlla mi ittewoo xaj bu ànd ak ñu baax ndax du ittewoo nit ku ànd ak ñu baax axa kay déglul yonent bi salallahu alayhi wa sallam nee na yàlla subhanahu wa taala am na malaaka yu muy yónni ñuy wër ci kaw en suuf di xentu ñan ñoo toog ci place di tudd la nga xam ne moom mooy seen borom na doon alquran la ñuy jàng na doon xadis yonent ba la ñuy jàngalante su ko defee dañuy wootante kaay leen kaay leen ñu daal di ñëw wër leen suñu borom yàlla buñ demee ba jataay bi di jeex bokk na ay laaj yu mu leen di laaj mooy lu tax ñu toog yàlla yu yaa tax lu ñu bëgg àjjana lu ñu ragal sawara suñu borom yàlla ne malaaka yi xam leen ne man mi tax ñu toog bëgg naa leen dinaa leen tabbal àjjana ca it dinaa leen musal ci sawara ca it dinaa leen baal seen mboole yu bakkaar am benn malaaka ne ah suñu borom ah diw mii day moom daa ñëw waaye moom jotaay bi indiwu ko woon de waaye daa fekk ñu toog rek mu ñëw toogaale ak ñoom suñu borom ne boole leen ko ci ñoom ay nit lañ ñoo xam ne ñuy nangoo toogaale ak ñoom kooku du doon mukk kuy texee ji te loolu mbokk mi ngi noonu loolu nga xamee ne fekk ñu baax ñuy jaamu yàlla nga toogaale ak ñoom loolee lam lay jural mooy yërmaande yàlla ak yëg njëggul njëggulu yàlla contraire ba it noonu la demee fekk ñay naan sangara nga toog fa fekk ñay carte nga toog fa ña nekk seen i bida ak seen i xuraafaat ak di wooteel lu neexul yàlla nga toog fa loolu danay jural mbiru merum yàlla même bu dee ne da nga ne gëmoo lañ gëm même bu dee ne jëfewoo lañ jëfe waaye toog da ngay toogaale ñu ban loolu day doon loo xam ne da leen di jural merum yàlla moo tax suñu borom yàlla ne foo gis ñuy xuus samay aaya jëlal sol say dàll nga dem ba baa nga yëg ne ñu ngi nekk ci leneen mbokk da ngay gis ne ànd ñu baax yeneen bi alayhi salaam mbég yu bëri indi nañ ko ci nee na doomu aadama yi day yowmal qiyaama yàlla dana am ñum ci yëkkati teg leen ci ay minbaru leer bu nit ñi tiit ñoom duñu tiit bu nit ñi ragal ñoom duñu ragal yeneen yi sax dañuy doon ñoo xam ne ah dañ leen di ñee ndax seen daraja yi ni mu kawe ak seen jëf yu mu néewe saxaaba yi na ko waaw yu mu yàlla yu ne mooy ñan mu ne mooy ñi nga xam ne dañoo àndante woon bëggante ca yàlla rek a tax loolu mbokk mu bokk it la ca am solo lool mbokk ànd ak ku baax day tax boo dundee du la fàtte waaye boo dee du la fàtte am naa bépp ànd boo xam ne addunaa taxoon bis bu la yóbboo armeel ya ñetti fan après fàtte na la complètement waaye mbokk gaa yu baax yu jëkk ya da ngay gis ne nañ doon sàmmee seen gannaaw yi xarit seen gannaaw yu àndandoo moo raw nañ doon sàmmee sax seen kanam xoolal yonent bi salallahu alayhi wa sallam ana ñaata ci ay sahaaba la yàlla yëkkati seen daraja te mi ngi ko jaarale ci ñaan gi nga xam ne yonent bi alayhi salatu wasalaam da leen ko doon ñaanal xoolal keroog bi muy ñaanal ibnu ab ibnu abbas allahuma faqihu fi ddin wa alimhu tawil yàlla ki yàlla na ko xamal diine xamal ko lu ñuy firi diine ca la nekkoon xabarul umma mooy ki gënoon a comprendre diine presque ci gannaaw saxaaba yi xoolalam ñaanaloon anas ibnu malik xoolalam ñaanaloon ñeneen ak ñeneen waaye nañ dem déglu ki nga xam ne mooy yaayu umu darda ki nga xam ne mooy yaayu umu darda bi nga xamee ne ni abi darda faatu na bokk na lu mu doon nettali ci secret yi mu daan def mu ne abu darda day bés bu nekk daana toog di lim ay xaritam loo xam ne ëpp na ñetti téeméeri xarit lim leen di wax yàlla yàlla na nga leen jéggal yàlla na ngeen yërëm mu ne ko waaw yow sa lim bi bari na di yéen mu ne ma man day maa dégg yeneen ci bari islam ne amul koy ñaanal ab mbokkum julitam ci loo xam ne nii yëgu ko lu dul ñaar yàlla boole ko ñaari malaaka malaaka yi ne amin waaye yow it yal na yàlla defal na lu gën li ngay ñaan loolee kon di mbokk mbir boo xam ne buñ dara bàyyi xel la mooy say mbokk yu dund da leen ñaanal foo mën a toll waaye rawatina buñ dee bu leen fàtte da leen sax di leen ñaanal mu am it loo xam ne nii ñi ngi koy dénk lool suñu ndaw ñi ngalaway ndaw ñi góorgóorlu leen xëy na mag jafe na mu am sax xarit yu bees waaye ndaw yaa ngi ànd ak kii tey ëllëg nga ànd ak kii am na ñuy ñëw ci yow am na ñuy dem ci ñooy dem ci ñoom waaye ngalaway tànnal ña nga tey xaritool tànnal ña nga tey xaritool moytal ma di xaritoog ay fenkat moytal ma di xaritoog ay ñuy jël alali jàmbur moytul koo xam ne njaaloo kese moom mooy jubluwaayam moytul fenkat yi nga xam ne faruñoo kenn yor jukoy politicien moytu leen di duural nit ñi ak képp koo xam ne dafay saggane la nga xam ne muy ay julleem yow nga la way ndawal julit moytul ko mel noonu bu dee yow xale bu jigéen ba ñee nga xam ne nii jàpp nañ ne seen yaram dañ koo war a def mu nekk ab nataal ci mbedd mi lu leen neex sol lu leen neex diwoo loolu nga la way moytul ñu mel noonu suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na ñi xaritoo woon ci adduna day ñoom ñépp ay noonu la ñuy doon yomal xiyaama xanaa lu dul ña nga xam ne seen xarit ga dañ koo tegoon ci ragal yàlla nga la way ndawal julit xoolal ku ragal yàlla nga ànd ak moom xamal ne yàlla bu bëggee ci yow yow dana la boole ngay ànd ak ñay dund sunna yàlla bu bëggee ci yow yow dana la boole jaami yàlla ya nga xam ne dañuy sax ci jaamoom yàlla bu bëggee ci yow yow dana la bannoo caaxaankat yi bandkat yi biddaakat yi bokkaalekat yooyu nga xam ne dañuy woote woo la yàlla subhanahu wa taala moomoon di ko féetale seeni baay wala seeni maam suñu borom mu ne doo fekk mukk xeet boo xam ne gëm nañ yàlla gëm alaxira ba pare di bëgg koo xam ne dafa nekk ci lu noonoog yàlla nekk noonoog yonente yàlla waaye ngal la way yi tamit li nga xamee ne ni mooy way jur yi nañ leen di dimbali ci loolu mooy xale yi ngeen di xool ana ñan la ñuy àndal ana kër ñan la ñuy dem ana ñan ñoo leen di fekk si di leen laayi biir ca xam ne loolu ca la gën a am solo ci la ngay réussir sa yaru doom bokk na ci loolee nga xam ne nii moom mooy ay àndandoom su ko defee nga la way nañ góorgóorlu jéem di fexe ànd ak ñu baax ànd ak ñu baax nag firiwul abadan ne mooy dañoo baax à cent pour cent déedéet mbokk doomu aadama yi suñu yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na dañuy mel ne kal bunyaan yashuddu ba'duhu ba'da julit ak moromu julitam dañuy jàppalante su ko defee kii day mat fii kii manque fii ñu daal di mottalante sa mbokk julit mën na mu tooñ la tooñ googee utal ko ay ngant laajal ñaanal yàlla subhanahu wa taala jéggal ko waaye itamit foo dégg ñu koy wax ci moom lu bon ngal la way défendre ko ki nga xam ne mooy yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na képp koo xam ne di day setal na ay défendre na mbokk julit ci luñ koy wax gannaawam mu daal di koy fegal loolu yow man ku mel noonu fokk yàlla subhanahu wa taala dana ko goreel ci la nga xam ne moom mooy sawara góor góor lu leen moytu xariti intérêt xarit yoo xam ne intérêt daw nga sàkk ci ñoom la nga xam ne nii lay mooy borom xam-xam yu jëkk ya dañ doon wax ne nga ànd ak nit ñu baax su ngeen xëyee yanu ay xeer yoo xam ne moom ngeen di liggéey nga doon ay maçon ngeen wala lu mën a doon moo gën ànd ak ñoo xam ne fu ngeen toog fruit yaag boisson yaa ngi daw waaye duñ la wax lu dul mbiri adduna kese góor góor lu leen di fàttaliku ñaan gi ngeen di ñaan fu ngeen mën a toll booy jàng fatiha yaa ngi naan suñu boroom ihdina sirata almustaqim sirata alladina an'amta alayhim ey yàlla yàlla nañu teg ca yoonu jub mooy yow ña nga xam ne da ngaa xiiwal ci ñoom te ni yàlla xiiwal ci ñoom yàlla waxal na ko boppam mooy yonent ya siddiqina ya ak gaa yu baax yi kon booy ñaan yàlla tege ca gaa yu baax ya loolu mooy lan mooy yaa ngi xool gaa yu baax ngay ànd ak ñoom loolu nga la way bàyyi leen ci xel fu ngeen mën a toll doomu aadama bi bokk booleel ci say ñaan foo mën a toll ay yàlla yàlla nag ma boole ma ànd ak ñu baax bis bu may faatu yàlla nag ma boole ma ànd ak ñu baax comme naka yàlla waxe ci téeréem bu tedd ba wa tawaffana maal abrar ay yàlla bis boo ñuy faat yàlla nag ñu faat fekk ñi ngi ànd ak ñu baax ca loolu mandarga bu rafet la buy wone na bis bu la yàlla dekkalee dana la dekkal nga ànd ak ñu baax ña yàlla yàlla baaxal ñu ci wërsëgal ñu ñu ànd ak ñu baax yàlla yàlla baaxal suñu njaboot yàlla yàlla baaxal suñuy mbokk yàlla yàlla baaxal suñuy dëkkandoo yàlla yàlla subhanahu wa taala jubal ñu àdduna ak alaxira yàlla yàlla boole ñu àndandoo yu baax yu kawe ya mu yeneen ci ba ak sahabaam ak yeneen ci yëkk jiitu woon yàlla yàlla rafetal suñu mucc te defal ñu àjjana muy suñu wàccuwaay اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين